sonal ñu benn police comprendre noppal nañ leen si lépp si lu bëri ndax yëmbal doo fi dégg yenn cas yi ak yenn déception yi fi am yu bëri comprendre jeunesse bi booloon nañ doo fi yëmbal nga dugg koñ boo xam ne danaa la fii dañ fi agressé nit bëriwul wax ne dëgg nga dégg yenn gox yi nekk ñaan fi agressé yëmbal pour nga gis ko si loolu xale yi nangu nañoo góorgóorlu nangu ñoo nekk seen waar ndax saa su ne ñu ngi police chaque jour yenn ndax nit dina am lu ko metti bu koo wane waane yooyu yow police bi ñu jiite chaque jour jéem a ñëwee benn comportement boo xam ne di nga dalal jeunesse ndax loolu ñu gis gars yi bi di intervenir noonu bu nga njëkkee woon amaana yu bëri dina du am dañ wax ne dëgg da yàlla tax ah ndax nit ku nekk tamit boo demee ba wax rek daa fekk nga sës nit ku tamit boo demee ba xiif sonal la ñu tëj la ñu takk raxasu loola nga raxasu ñu takk loola masque nga takk masque ñu tëj la loola sa sa néeg nga dugg tëju kon kon jeunesse bi am nañ si lu mu leen noppal nañu waxante dëgg waaw bu loo xam ne bu bu ñëwee ñu xam ne askan bi yëpp a koy xeex il faut ñëpp jógandoo wane seen bopp ndax lan dañoo am naqar bu ñu metti suñu biir xol ñu yàgg koo téye yàgg koo muñal Sénégal nag drapeau vert jaune rouge bi damaa bëgg ñu xam lu muy signifié bu baax fi ma koy gisee man xam nga ab réew boo si nekkee vert bi pour man hmm, bu la joxee réew mi ñëpp sopp nan la yaa may dëgg ndax vert mooy lan garab garab garab goo mën di gis presque day vert mooy wala ne ñu ñi saf nañ si yow sàpp bu zone bi ñëwee nag mooy wala jox nañ la avertissement comprendre nga pour nga gën a doxal ñu jëlaat biddiw bi andiwaat bi biddiw bi lan la am verte pour ñu xam nga war ñoo gën a bàyyi xel xam ne ñun ñi kat am na am na loo ñu deseel bu rouge bi ñëwee nag ñii dañoo dem ba sës am lu ñu metti ñu koy wane loolay andi loolu tax nag rouge bi ñëw jeunesse bi nag joxante nañ rendez-vous vendredi pour ci station bi pour gën a feesal seen naqar ci li am. ak waaw mën nañ koo def calmement hmm, ak respect hmm, te ku nekk xam ne loolu mii nii kat daa am lu mer soxol nga bëgg koo wane ñu yem foofu bañ andi non ñu bañ a andi benn violence ñu xam ne lii nii kat ñun lu yoon la dogalee nii la waaye tamit daa am lu si am responsabilité bu war si ñoom waaw. jërëjëf jërëjëf mbokk yi. mairie bi booy dañ doon dem mairie bi pour taali oto bi daw xel nga yooru miir bi tourné waat bi muy tourné waatee booy waa ji six ñoo taxaw si oto bi oto bi daw xel waa ji loxo bi naan ñetti bal benn benn bi dal si taabal maire bi jaay fa benn bi dal si si bopp booy bi bu xees moo taxaw si kanam booy booy bi si ginnaaw la newoon ko benn sàkk ndax dafa wooroon mag gi na ko wàccal cric bi dem ñibbi ba suba comme dëkk bi dafa tàggu nga dem ndogu ji ngi déggul ma la bu booy bi eh, dugalee clé yi ba pare wékkoo saagam taxaw si ginnaaw man maa taxaw nii bu xes taxaw si kanamu booy bi booy waaye bi muy tiré deux deux balles troisième balle bi mu koy tiré ñu ngi ci loxo bi di def nii yaa ngi dégg lu ma la bu xees wàcc bal bi ñëw bi bal bi ñëwee dal si bopp booy booy yuur gi di génn man maa lu weex la ñu ko muuree man maa ko sànge maa ko sànge lu weex lool mais tey dama dégg si journal yi gars yi ne xeer lañ ko dóor te bal rayal lañ ko dóor bi ko waaye di tiré man maa ngi taxaw bu xees moo taxaw si kanamam mécanicien la magam taxaw noonu man maa ngi taxaw mu ko bal rayal booy bi di daanu yow yaa ngi taxaw. maa ngi taxaw fan fa laa doon dépanné maa ngi taxaw sama kanam booy bi la taxawee man ma taxawee nii bu xee taxaw si kanam booy bu xee daa sëgg bal bi si bopp booy bi. kon te si lim du dëgg. lim génn moom moom loolu amul loolu amul ndax man waaye bi mu tiir maa ngi taxaw gars yi la ñu yéeg si pick-up bi muy daw xel mu génn loxo bi di tiire ñetti bal la tiire man loolu loolu moom lu ma lu ma mën a seede la maa ngi taxaw fa laa doon dépanné. xam nga fii boo ba tey réaction yi positive rek ngeen ñu recueillir ay réaction yu positive rek ngeen ñu dégg donc ça montre que ni fii ñu gëm yàllaa fi nekk donc on a une population digne gis nga ñu ko accompagner mbooloo bi ñëpp représenté wul un centième population yëmbal ñu nga xamante ne ñu ngi dund ak seen frustration donc nag bu ñu déggee yeneen écho ñiy wax leneen dinañu naqari bon ça reste à être confirmé nag parce que man maa ngi dégg si nit ñi ñu naan dañ ko door xeer ak ray des choses de ce donc loolu day montre ne ni lu ñuy dund ñoom yëguñu ko donc ils n'ont aucun respect pour cette population te fois donc fi ñu gëm yàllaa fi nekk tout ce qu'on demande c'est que justice soit faite te ñu bàyyi lu ñuy wax nit ñi bu nexeeroo ko rey mooy dañuy accuser un yëmbalwaa moo ko rey te ñëpp teew ne man personnellement ba xale bi daanoo accident voilà ko dooruñ ko xeer ñoo ko muur toog defar ko papaam ñëw te papaam dégg ngeen nu mu waxee ñoom ñoo calmer jeunes yi pour buñ def leneen donc euh, gars yi gëm neen yàlla nen bàyyi lu ñuy wax donc loolu def ñuy dérangé voilà merci beaucoup kon gars yi denc nañ bay génn. maqaamuka mahmudun la dal xas yàlla na ko yàlla xare àjjana ak mboolem ku mu fa fekk ak mboolem ku ko fekk ci laaj Seydina Mouhamed waaw di am tiis ak met ak jaaxle waaw vraiment yëmbal ji yëpp génn nañ am nañ lu leen metti tii am nañ tiis am nañ jaaxle xam nga di ñaa di ko ñaanal rek encore une fois yàlla xare ko ci àjjana yi Firdawsi. Cheikh Diop tey loolu mën a wax ci moom. waaw wax dëgg yàlla ci sama booy la booy bi kuul la booy bu yaru la kenn mësu koo dégg ci naka suñu noonu waaw bu doon suñu dëkkandoo xam nga ay magam sax laay wax laa gën a miin sax ndax samay combat booy duñ ci taar ñoo dëkk benn aléa di am lu di am lu métti lu ñu métti lu trop trop trop trop trop waaye billaay porteur de voix nga boo waxee dañ lay déglu ban message ngay lancé ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiite su su takk der yi waaw encore une fois may njëkk a wax civil yi ñu ànd ak dal te xam ni lii la yàlla na namoon ci moom waaye tamit bëgg yoon def liggéeyam tey tey xale bu ci doon jaay dorog rek dinañ fexe ba xam fi nga nekk yëkkati la yóbbu la jàpp lu toll ni nag jël bakkanu doomu aadama dafa foor ci ku nga xam ni manifesté wul yoonam nekkul ci manifestation mu ngi woor taxaw bunt garage am maa ngi ay video yu leer man personne ku ko laaj ma joxe ko oto bi daw ba fekk ko garage am dóor fa bal dóor ñaari bal mais loolu ba kañ gis nga un homme de loi da nga fa war a nekk correct gis nga yenn yi ku correct ànd ak sa conscience tranquille doo ko def gis nga waru yabal ay nit ñu nga xam ni leer na la ñii dañuy soppeeku gis li fi nekk nañ ko wax li fi nekk il faut nga wax góom bi gis nga policiers yi ñi ci ëpp dañuy màndi soog a dem ci ay intervention mais ki àndul ak xelam lan la mën a def fi mu toll koo ni woon koo ni woon rey nga nit sax mu ni man est rey naa nit mais loolu dafa war a jeex. ba ñoom ñu ci bëpp miim miim ne oto ci lim génne du loolu lañ ko dóor xeer bëgg a taxal zone si. dóor xeer sama téléphone a ngi nii man personne ba ba ba bi biñ ko dóor lépp mu ngi nii bal lañ ko dóor bal bi tëf ngay dégg mu ñëw mu daan loolu vidéo yi laa yor man maa fekkee bakkan lay laaj fekkewuma ko mais ñi fekkee ñoo vidéo jox ma. man ma téye te fuñ ma ko laaj mën naa ko joxe bañu ma si dara waaw gis nga lii dafa war a jeex ñun ak ay ñoom duñ ay noon man dama bëri xaritu policier mais man wax dëgg yàlla ñu ñu nga xam ni boo leen gisee da leen ni naw ci liñ nekk koo ni ci policier la doo ko gëm fekk benn vaurien bu nga xam ni kenn xamul lan la nga jox ko bal mais bu rayee yow yaa ko def si yow mi ko ko jox nañ xoolaat loolu wax dëgg da doole askan bi ñuy xeexee loolu moo dul yoon doole askan bi gars yi waruñu koo xeexee pol suñu police suñu gendarmerie suñu am di tey pour suñuy kaaraangale mais pas ñu jël ay bal di ko tëri ñoo xam ne seen yoon nekku ci ki nga xam ne dafa nekk at leem woor woor koor ak kooram ñëpp yi manifesté wu demul ci manifestation liggéey ba heure wàcc jot mu war a dem pour ndog ji kooram di tëj palaasam ñu fekk foofu dóor ko bal te ñoom seen bopp bu fekkoon si ñoom la ba tey tey balaa balaa tey di mardi tey ñu lijjanti ko ñun nag li ñu metti mooy politiciens yi ñoo ko jarul lii bu doon bu fekkoon ne li ñuy wax dëgg la kon politiciens yëpp war nañu mën a li ñuy wax euh, opposant ak pouvoir ñëpp ñoo yem kenn jëru ci xeex ñoom suñuy doole suñuy doole suñuy doole ñu bi ko ñu ko xeexee te doo ci gis seen njaboot doo ci gis seen doom doo ci gis seen jarbaat ñu ñuy xeex ñu doon xeex fii ñëpp nag mi politiciens yëpp la amul kenn koo xam ne jabaram mi ngi ci wala doomam wala kenn ku taq ci moom ñun nag ñooy vauriens yi nga xam ne dañuy jël utiliser ñu pare teg ñu fële loolu moo mën a ñàkk. ak ñi koy def képp ku ko képp ku koy def nga bàyyi sa xel ci loolu. di xeexal ku nga xam ne yow. di jëntiw la. waaw musu leen a dégg doomu ministre bu dee. musu leen a dégg doomu président bu dee. mais pourquoi xale yi ñoom buñ nee yuuxu ñu tekk ci kanam pour lan ku bëgg ci xeexal sa bopp na nga xeexal sa bopp li la ñor xam nga lan mooy xeex bi ku am sa carte nga xool ki nga wóolu nga sànnil ko ko bul bu kenn jaral kenn ngay lakk euh, pëno wala ngay def lu nga xam nag sudul noonu heureusement ba booy bii bokku ci bu ci bokkoon nag dinañ am gàcce lool waaye yàlla dogal na ni moom bokkul ci loolu. li gën ci loolu mooy xam nga ni kenn du woor di manifesté wu. kon ci koor lañ ko rey. wallaahi azim boo xoolee fa affaire yi amoon ak fi waa ji dawal oto bi ba dóor fa bal nga xam ni bokkul sax nit ñi duñ ay dof nit ñi duñ dof. baax ñu ngi lay nuyu yow tam bëggoon a xam sa tur. voilà man maay euh, Lamine Diop. je suis le coordinateur de l'association des jeunes unis pour le développement Gueule Tapée 2 dama dégg funérailles bi ma ñëw taxa na taxawal la jeunesse sénégalaise di interpeller juste le président Macky Sall euh, que vraiment situation bi ma vraiment euh, c'est ému c'est ému et c'est triste et que nous sommes un seul peuple et la stabilité de ce pays et l'apaisement nous incombe nous tous kon ma ne policiers yi sunu ay frères lañu man mi taxaw nii je suis un ex-chef à la retraite donc euh, aujourd'hui tey je suis devenu un coordinateur d'une association au niveau de Gueule Tapée de Guédiawaye bi ma déggee lii dama ñëw fekkee lii pour euh, wax ci kaddu et que tamit vraiment il est temps temps vraiment qu'on arrête monsieur le président Macky Sall le peuple est fatigué démb dégg nañ sa message dégg nañu la mais il est grand temps de bâtir les valeurs communes comme comme ni nga ko waxee woon da nga ko waxee kon lu ñu soxla mooy nga def ko fii violence bi mais bakkan dafa fort doomu aadama bu juddu euh, comme ñëpp xëy ñu rek si yenn anam yi mu tey mu am waroon am jabar waroon am ay doom vie mu jeex fa ay mbokkam ñàkk ko si ay détails yi nga xam ne waroon na mën ñàkk donc daal damay gàttal wax ji mooy yaakaar bi ñu am ci yow ba faloon la vraiment dellu sil dellu si sa xel nga jàppale peuple sénégalais jërëjëf merci jërëjëf jërëjëf mbokk yi ni ma leen ko waxee.